asalaamualeykum waa Sénégal namoon nañ leen ñu ngi leen di nuyu nuñ ko daan defee démb ak barki démb di leen ziyaar di baalu àq tey baal ñëpp àq ngonal ñëw na ngonal mënul ñàkk ci réew mi ñin ñi laaj nañ ko guddi laaj nañ ko bëccëg waaye ku ne xam ne ne ñun suba ba jant sow lépp lu ñuy def rek mooy bégal askanu Sénégal ñu nekkoon ci ay série di enregistrer ay épisodes yu bari pour mën leen a bégal ci wàllu série dellu siwaat nag nañu nag ngonal ak yéen te dootuñu fi jóg incha allahu rabbi lu yàgg dëgg la 2013 ba 2023 10 ans te ñu ngi waajal fete anniversaire u ngonal te incha allah bu boobaa doomu aadama yëpp dañ kontaan digg nañ leen ko waxtaan nañ ko ak suñuy kilifa yëpp ngonal dootul jóg ci télé bi alaaji saa neex sama ndeyjoor sama xarit bi li nga sant tey rëy na rafet na lool car macha allah. gis naa la man li ma def baax na de. torop waaw yooyu dama koy faral di def yu baax yooyu. waaw dama koy faral di def tey yow tey da ngaa génn fii mais daawoo génn fii yow. non non non non waaw génn fii. déedéet waaw ah euh, Cheikhouna di Aziz. waaw taw baa ko téye Thiès. waaw moo tax mënul ñëw. waaw waaye defe naa ne ñun ñaar bu fi tegee teewal nañ xelam yëpp a ngi fi. xelam yëpp a ba tey mi ngi woote. kon di leen ziar di leen wax ne ngona la ngóog. Mm. saa saa nuyool. Euh, maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. ak bépp sénégalais bu nekk foo mënti nekk. dèjà dëgg nuyu. waa bitim réew. namoon nañ leen. Mm-hmm. yelente kon sax yéen ñuy gis ci yeneen waaye fii moom plateau bi xam naa ni gars yi namoon nañu ngonal ndax fooy dox ci biir dëkk bi wala foo voyager ah. partout dans le monde ah. ñi ngi lay laaj émission bi hmm. waaye di jiital ci nuyoo suñu kilifa diine yi wax fu waay mën a nekk ak tarixa boo mën a nekk rek ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi te wér amiin waay waaye nag di ñaanal euh, sunu homme de tenue yi di ñaanal ñi nga xam ne ñi ngi ci prison yi ñi nga xam ne ñi ngi ci hôpitaux yi leen ñaanal yàlla jàmm ñu dellu seen kër ci jàmm ah di ñaanal Sénégal. yàlla fi jàmm yàgg. jàmm sax fi yàlla tappe xol yi na ko maam Abdul Aziz Sy Dabakh daan waxee. yàlla yàlla tappe xol yi. amiin yaa rabbi lépp lu nekk ci xol yi ci ñagas-ñagas. wala hmm. ci lëndëm lëndëm envers sa moroomu doomu aadama. amiin waay yàlla na koy sunu yàlla na ko sunu borom raxasal. amiin waay jërëjëf Cheikh. mais ça da ngaa changé look. waaw da ngaa ndellu. waaw da ngaa ñëw fekk sama ci ndel bi. waaw loo ci jublu yow sa ndel gi. non dama dama dama dama dama xam ne c'est plus rapide. et moo gën a booy jàpp ak yooyu yëpp et puis tournage yi raccord yi sa karaw melul woon nii sax bi mu saxoon dafa ëpp wala da nga koo wàññi dafa doon indi problème bu bëri ah. léegi j'ai décidé may nelu rek ngay nelu rek waaw dalaa jàpp sax te ça yow jamono jooju boo doon sanse sa tuba yi da koy teg ci jumbax bi mhm. ah ndelu jël tuba yi ci jumbax bi def cravate boobu waaw njool ca kaw nag siggi def nii nag. jamonoy Papa Wemba la. réew ba dof yow. jamonoy Papa Wemba. Papa Wemba. waaw ndeysaan Papa Wemba wax nga dëgg daa wooy ba dee. ci kaw seen la dee. wala Koffi Olomide. déedéet nga dund de Papa Wemba dee ci kaw seen bi. waaw moom la bu ma weddi. kan moo ci pata woon tey oh, ah, Kanda Bongo Man la. <laughs> Tanda Bongo Man la kooku Tanda Bongo Man moo doon def nii ma fecc moom ñuy def nii. di di di boobu da ngay <laughs> teg super sang bi. waaw ca kaw jumbax ba ca fa presque dënd bi. takk cravate cachemire. xale yi faw ñu. takk cravate cachemire. waaw cravate cachemire waaw. sol ay jol renfort mais jol renfort yi. day tiin ci côté bi. waaw ah. da koy yóbbu village artisanat bu Thiès ñu feereel la ko. booy dox mu naan kok booy dox mu naan kàcc kàcc kàcc kàcc kàcc amoon na feer boo xam ni plastique la woon. amoon na feer boo xam ni feer original réel. dëgg la bu ko defee manche yi nga retoussé ko def ko nii. waaw loolu nga daan def. très bien. waaw ndelu boîte boo dugg toj ko. waaw boobu nag waat yi. yàgg nga toj boîte. fële dooso. dooso doo nga ko. ak ak feneen fi nekkoon wetu Rex. Euh, euh, Poussin Bleu. Poussin Bleu. ñoom Sangomar. waaw yaa ngi fàttaliku mos ngaa dem boîte fecc ba simmi sa yére di ko febeere. waaw boobu nag. taa yi febeere génn mooy morso febeere boobu. boobu nag tournée nationale la ñu demoon bu pisik. waaw. waaw. waaw ngay fecc ba simmi sa yére di. febeere waaw waaw dese dese kilotu Adidas bu bëla. lu taxoon loolu. non loolu kenn du ko wax ci télé. la <laughs> moo tax kenn du ko wax ci télé. <laughs> ëpp naa wax. saa nag sam pecc moom Sénégal dañ koo bëgg. ah. nga xam nga lan la ma jox. Hmm. bëgg gi nga bëggoon fecc. Hmm. Bercy ba nga demee Bercy 2005. cinq Youssou Ndour di way Ndakaaru. waaw ne la eh Sadex borom Thiès. waaw nga dugg rek naan. waaw waaw waaw boobu micro bi la la doon jox. dafa doon jox micro da la doon jox micro pour nga jabatu. Ah, boobu boobu a wax ay rataxu nag la ma doon jox. am na vide. bu bari bu mu bàyyi. waaw Youssou Ndour waroon na maa kabas mbay gay nee na la eh waaw ñëpp woo nañ la nga topp public bi rek xam nga boobu nga doog ko yëg Bercy boobu ay tàngal xanaa xamoon nag Bercy boo fay soog a yëg nii nga gëlëm ah Bercy du man rek la gërëm loo de <laughs> topp pecc bi pecc rek xam nga man Bercy nag invité rek laa fay nekk waaw mais ñi fa ñi fa njëkk a way waaw hmm. dañoo dem ndox ma non demuñu ndox ma waaye da ngaa toog pecc ba ba fàttali laa waroon jox. micro non xaw ma ne daf ma doon. non loolu xaw ma ne dañ ma doon jox vidéo vidéo ngay fecc de. barki Rasulaay am na vidéo bu bàyyi la. non non Youssou jox micro bi da lay tàllal. yow maaw dimbali leen ma andi leen ma biir fu mu woyee fi indi waaw yow bu ko fi indi xaar na la une minute ñëwuloo jël si micro bi. waaw xanaa maa demoon après mu ne doomu mbër jàngil bëre. ah, ah, ah kon gan gi ma am tey. waaw koo am. saa. waaw xaaral ma laal ci gerte gi waaye. saa gan gu mag laa am may ma ci gerte gi. non lii li ñu jënd ah, ma rek la ci rek bal naan danga. gan goo xam ni. waaw. saa boo minul jotaayam. Hmm. mënuloo jàng nekkinam. il faut nga koy fréquenter pour mooy kan. pour xam mooy kan. parce que xol mooy doomu aadama te xol ba rafet na gerte gi ma jox ñett doom la am. waaw waaw waaw waaw waaw dina expliquer ni nawetu ren bi incha allahu rabbi dina baax. non ci man personnellement du lii du ay damay am ay seex wala. ok kon garaaw am problème de loolu. kon loolu sama xam-xam àggu fa de. gan gi yàlla damay wax lu ma wóor télé laa ne. gan gu ya gu baax saa. Hmm. gan gu diiñ. Hmm. waaye gan goo xam ne nag sénégalais pire la. Ah. waaw. daa xam Sénégal. Hmm. bëgg Sénégal. macha allah looloo waral mu jaay nationalité am sax jógee Gambie. Hmm. ndax Gambie la juddoo. Ah. fa la yaroo ñëw Sénégal. mën na kaay ma xamal benn affaire Gambie moom juddoo fa. Hmm. taxut a bañ a nekk sénégalais. waaw juddoo sénégalais yi tout Sénégal yi taxut a doon. bañ a nekk gambien ñoom ñoom daal ñaari réew mi naan jaaxal na ma te lan moo ko séparé. xam nga gan gi kan la. waaw yow pour yow kan mooy toj internet bu fi ñu toll internet koo xam ne mu ngi toj internet. xam nga man nag internet nii laay def nii. waaw tiktok bi damay def nii xoolal nii. waaw tiktok bi. waaw bu ma defee nii. waaw man ay oto. ay ah, yooyu ngay xool. Ah, waaw ay ay ñoom ay ñoom ay ay nu ñuy defaree oto yi nan la ñu def ba defar yenn garaat chaîne yi. Ah, yenn ñi bu ma leen déggee ñuy wax nii laay defal. waaw yow wax ma kan la rek ma ko. waaye mais ça sansé naa nag. waaw non trop. ah. Eh, sa waay eh, sa waay bay toogal wax ma kan la. doo bàyyi ma doos dama koy. non toogal wax ma kan balaa nga koo jëli kan la. Cheikh Ahmed Cissé. waaw. Cheikh Ahmed Cissé men waaw kooku waaw dinaa koy déglu léeg-léeg. waaw du ma koy déglu lu bari nag. moom laa invité de léeg-léeg mu génn fu neex ma tag fa déglu reetaan. waaw paasaat. waaw kooku nag dafa bëgg ay waxu awra de. du ko fi wax fii de ci kër gi. kooku eh, waaw bu ñëwee fii li ma dama lay wax tamit sama gan la. déglul li ma lay wax. kooku bu ñëwee fii. waaw li muy wax ak li mu dul wax. waaw doo ko contrôle day ma de. waaw déedéet déglu wax la. te fii télé la du internet. waaw déedéet may may may briefing naa ko. wax ngaa ak moom. waaw da lay wor. bu ma woree ma war ko. baat bu may war ma koy wor bu ñëwee fi day mel ni musulaa xam. ah, ah wax ay mi ci buntu kër gi. mos naa ko dégg mu wax waxu awra bu garaaw. waa déet bàyyi rek mu ngi ñëw dootu ko wax ah ati na ñëw. Cheikh Ahmed Cissé. na ñëw. mon ami Yeksil. na ñëw bàyyi ma fas sama kanam. waaw fasal sa kanam tuuti waaw. Cissé. Ndiaye kontaan naa Cissé. wala gën a bëgg. jërëjëf Cissé. Ndiaye. teral nga ma. sagal nga ma. ñëw si sama kër gi. dalal ak jàmm. Ndiaye. Guèye la asalaamaaleykum waaw. Guèye la mooy Sanex. waaw mooy Sanex waaw. Guèye Cissé. Cissé sant. Malick Fanta Ndiaye Malick Jalle Ndiaye ba Jéeri Macha Wallo ak Alsane Samba Yacine sëti Birane Jama jàngu bi ak Andala Buri moo ñëw. kooku mu toj sama am. dafa xàppati moo jaayoon bi tubaab bi. ah, ah boo demee ci museum ba ca Angleterre nga fekk moo jaayoon Gàmbi tubaab bi. na buur la woon bu kenn ñemewut a diggaaleeg moom. muy def lu ko neex. waaw ah, d'accord mu jaay Gàmbi tubaab bi d'accord anglais yi ci 6 pounds ah 6 pounds waaw. dara fekk ko ci. est-ce que bokkul moo moo jaayoon Kunta Kinte. balaa Kunta Kinte la. 6 pounds. waaw la jaayee Gambie. yooyu 6 pounds ñaar 6 pounds woon na. bëri woon na alal la lu mel ni Gambie ku ko sañ a jaay yaa ko moomoon. waaw mooy dëgg la. Mm-hmm. kon kilifa mm-hmm. nga dal ak jàmm ci ngonal. jërëjëf. ngonal gëj nañu Sénégal nag. Mm-hmm. waaye dañoo dellu si tey. nga nekk invité bi njëkk ci ngonal bi. waaye it nga doon nag invité bu jar a invité ndax nag danga am bës jamono yi da nga koo poñe réew mi poñe nga ko. Mhm. dalal nga nuyoo ñu dugg ci waxtaan wi ak yow. balaa may dugg ci waxtaan bi yàlla ji tey la commencé taw ngeen di yéeg gerte tey. waa gerte roose la. Ah. kon Sénégal yokk na foo xam ne dañuy bay. noor ak nawet foofu dañuy bay noor di bay nawet. mu nuyoo de waaw nee na nga nuyoo. moom nuyoo balaa bu leen andi attroupement. xanaa dafa am lu ko naqari. déedéet déet parce que <laughs> xam na la. mais lan hmm. moo ma nag déet. da nga hmm. wax loolu. non amul lu ñu waxtaanee woon. waaw waaw waaw nee moom da nga ko nuyoo. waaw sama lekku gerte. waaw dëgg dëgg moo man ko nuyoo ba pare ñu wax ci loolu. moo lay tooj moo maa ngi nuyu ñi tàmm émission bu mag bile. waaw di ngoonal. nga xam ne boo xamee wàllum communication. dangay xam ne émission yu bari ci la ñu inspiré wu. loolu dëgg la. tur yi rek a wute. wallaay dëgg waaye ngoonal yi bari neen de. wallaay dëgg la. dégg nga. di nuyu Aziz. Aziz taw bee ko téye tey nit ku daal ndeysaan moom nag. mii kër la euh, tuutee nag bu tawee dafa war a toog ndax ngelaw li mun na koo yóbbu mu réer. dégg dégg nga dégg nga toog dégg nga. dégg nga ba la dafa màq di nuyu Cheikhou Guèye Saneex Samb. ndeysaan di la nuyu. Ah. di nuyu techniciens yi ak ñiy seetaan yëpp. Hmm. di nuyu waa Gambia. Hmm. fépp fu Gambia mën a nekk rek maa ngi koy nuyu. Hmm. di ñaanal sénégalais yi am jàmm. ndax réew la moo xam ne valeur bi ñu am buñ ko préserver ba mu baax. àdduna mm. day ñëw tibb ko te du ko mën a yóbbu. ndeysaan ndax nit mën naa sol yére nga jëndi sol. bi moom fan ngay wax noonu. Sénégal Sénégal waaw. Ah. nit mën na jënd yére mu rafet. Mm. lii nga sol bu ma neexoon sol ko. dëgg la. waaye mbaax gi ci yow. Mm-hmm. du su ma neexee baax de. wallaay ndeysaan. waaw ah, foog ma roy la. Sénégal nag amut lu ñuy jënd di yóbbu waaye lu ñuy roy la am muy valeur. dégg ko muy aada. muy cosaan muy diine ju leer nag muy dimbalante ak bëggante Sénégal googule maa ngi ñaan loolu sax fi amiin dëgëral ñiy jëmbat loolu ci Sénégal tamit ñooñu buñ dëgëree mu am solo di am mbégte ñëw ci kër gi ndeysaan jërëjëf waaw kër gi nag waaw dama koy ah. wax ni kër gi daa am lu muy bañ nag ah, waaw am lu muy bañ mhm. waaw bu fi wax waxu awra oh, <laughs> Ah, waa na wax ko wax ko règlement kër gi. dama lay wax rek. waaw bu fi wax waxu awra. amul benn problème dimbali ñu. waaye buñ ma laajee mbiri awra nu may. duñ la ko laaj nag. kon du ma ci wax yow xam naa ne yàkkamti nga ñu laaj la ko. waaw mooy suma liggéey. parce que ah awra la xam nga di laaj ko ko leneen waroo xuus foofu. non dama koy wax li kër gi di bañ muy xuus. waaw non man man xam nga fa ma bëgg a njëkkee moom. kii bu ma xamoon ne moom ngeen invité. waaw da ngeen koy changé. waaw waaw ah. mais awra log la waa déet waa léegi wuyu ma dimbali nu ngir yàlla gis na lii nii télé lii nii émission bi day daw ci télé yu gën a mag ci àdduna bi yu gën a mag ci àdduna bi laa la wax nag gis nga TFM gi waa Sénégal bu ñu ne Sénégal la yem ay bu ñu xamoon fa mu àgg ak télé bi lu mu amee doole hmm. ma wax la dara waaw dem na Africa 7 waaw ñu jàpp TFM <laughs> commencé na de maa dem de billahi walaay tallaay ci weeru koor bi. waaw Africa ci biir laa dugg ñu jàpp teefe. Eh, télé yëpp déet waay eh, eh. billahi télé yëpp boo demee ci àddina tele yëpp. waaw dañuy jàpp yeneen télé yi di xool seen ki loolu c'est normal. non dangaa mës a dugg TFM ba gis ko gis mais loolu loolu du dara. sànni a dugg TFM ba gis ñu jàpp beneen keroog bi may dem jëli suma visa bi Amérique. waaw dama fekk ci biir embassy bi. waaw ñu jàpp TFM matinal. <laughs> baax na wallaahi baax na. ma ne maaraane yéen télé ngeen ngeen di jàpp TFM xam nga lu waral loolu muy mel ni jaay jaaykati téléphone bu bu dul yusi xam nga lu waral loolu utiliser beneen bu dul ñett ko waral mhm. bu njëkk bi professionnel yi nekk TFM mhm. maanaam réalisateur yu gën a mag ci àdduna bi waxuma Sénégal ñi nga xam ne boo leen bi bitim ñu jaaxal tubaab yi mhm. ñu mel ne ay Mao Cissé ñu mel ni ay ay ay booy bi démb bi ah. Pape Samba ah, ñoom Pape Samba. ah ñu mel ni ay ñoom Vieux ah? maanaam ay ñoom Laasana. maanaam ah ah as Malick maanaam réalisateur yu gën a mag ci àdduna bi ñoo nekk TFM muy benn. journaliste waaw tonton mag. tonton mag tonton mag est-ce que demul delluwaat nekk rappeur sunu falaay buur. ah. eh mooy directeur technique léegi. ah mooy directeur technique léegi waaw mooy directeur yaa ngi may dégg Ndiol beneen bi journaliste yi fa nekk. ay intellectuel ba pare nice casting bi. waaw ñun suñu journaliste dañoo rafet. waaw dégg tubaab di articuler bien les mots. maanaam bu ñu def journal ñoom fi war a am point dañ fay teg point moo tax boo jékki-jékkee ñaaw dañ naan la toogal tuuti boo ñaawee Bouba Ndour loolu lay wax waaw dañ naan la toogal nga noppaluwaat waaw ba jël sa temps Bouba Ndour day yooyu boo ñaawee danaa la demal nga def juwaat nga wàññi sa graisse beeg yooyu après nga ñëwaat ñetteel ba xam nga lan la mhm. ñu jël comédiens yi maanaam acteurs yi gën a aay ci Sénégal dugalal ci télé bi muy ñun ñoo gën a aay ci Sénégal ci wàllu liggéey bu ñuy liggéey ba ci des lan la mhm. Youssou Ndour lu mu laal or la ak jamaa lu mu mu dem moo nu yóbbu foofu léegi fu ñu dugg ak yow ci waxtaan wi waaw ñu dugg ci waxtaan wi waaw moom waaw ustaas la hmm. wala tiktoker la man bëgg naa xam ñëw ci loolu ustaas wala tiktok tiktoker lan nga ci en fait Sénégal hmm. ba tey problème bi ñu am hmm. man awma ko ci ñoom problème mu lan la Sénégal am man maay kan te doo leen wax yow yaay kan. ñoom mënuñ koo xam. non di wax ci ngonal li nag. te man xam naa leen. wax ñu ko ngonal bi. xam nga su ma demee ñu ne xamoo ko tiktoker la ma ne non kii nelaw na. Hmm. waaw sori na ak tiktoker. Hmm. mais ni ñu moderniser oustaz def ko ko tam. Hmm. man xeeb naa loolu. lan pourquoi nga wax loolu. dama ko xeeb. beneen bi mooy suma personnalité mayut ma wootewoo lu ma doonut. nga woote wala nga dool lu ma doonut waaw oustaz day toog di jàngale waaw di bindali xale waaw mais du social commentator toog télé waxtaan ak ak rajo eh, mun ngaa jàngale ci télé bi tamit loolu waxtaanee woon nañ ko journal journaliste yi dañuy jàngale ci télé bi xanaa kon oustaz la information non non non oustaz ay acte waaw mais man nitu yàlla laa mm-hmm. wax ci gàtt du ma sëriñ du ma imam du ma oustaz du ma ñoom duñ ñoom oustaz leen mais duñu nitu yàlla oustaz la. waaw non bëgg naa nga répondre ma ci loolu parce que dafa am sew sew bu nekk ci biir. Uh-huh. da nga ni yow. du ma oustaz nangul naa la. Mm. parce que oustaz day toog di jàngale. waaw Cheikh Ndiaye wax la wax bu am importance ne la oustaz mën na jàngale biir daaraam jàngale ci télé bi. waaw kooku nangul naa ko. très bien. kooku xam naa daf lay rëccoon. Uh-huh. ni yow nitu yàlla nga. ma lay laaj oustaz yi moom lan lañu. ñoom oustaz lañu. ustaas lañu mais jegewuñu yàlla. loolu beneen kaala mais ustaas lañu ñoom. Hmm? ñoom nangu neen ne ustaas leen mais man duma ma ustaas nii imaam nii xaadi nii mufti nii influenceur nii tiktoker man nitu yàlla la man de man pour man dama jàpp ni ustaas yi. ustaas lañu nitu yàlla lañu man loolu laa jàpp. waaw yow am nga moom duraam la ba pare solal na leen ñaari mbubu. waaw mais benn laa sol nitu yàlla. léegi ma laaj la nitu yàlla mooy kan ak ustaas mooy kan. ustaas mooy ki jàng ba pare. Mhm. di jàngale. très bien. nitu yàlla mooy ki yàlla méngoo mbiram. boo koy laaj sax bu la tontoo nga yéemu yàllaa koy yee yenkeewal li mu lay tontu. yàllaa koy diyee. waaw waaw ku koy nitu yàlla. mais kon oustaz koo xam ne dem na ba mbaa yàlla moom ñaari malaayka yi nekk ci yow di bind bàkkaar. Hmm. moom far amatu ko. yow loolu nga. waaw nitu yàlla la. ba kooku moom munu munut a jàngale moom. nitu loolu ko yàlla di dee munuñ ci jàngal dara. mu ngi jàngale moo tax may jàngale. mais jàngale bi yow doo oustaz. professeur xam nga oustaz yi. parti bu ndaw la ñuy liggéey mooy diine la ñuy wax. waaw man jéggi naa diine. fan nga toll. man société laay defar. waaye non déet man li ma jaax moom dafa ne nitu yàlla la. waaw. mais kii yow laa miñam bi lu bon li ci génn lépp mu ne nitu yàlla la. mun ta bon olof su ne nopp nga ne nopp waxoo lu bon olof nga làkk. dëgg la waaw. fa laay yem xel mi jéggi ci li ma waxut. waaw waaw bul àgg ci yeneen yi. Hmm. télé la da ngeen ma carton zone. bu nekk rek damay rouge foofu laa foofu laa toll woon à un moment. ci théâtre waaw yow waaw amoon nga problème boobu. ma ni pourquoi. lii ni mu tudd ñun ñu am problème mu di ko wax. ba nga waxee toogal sa pooju ndey. lu ne dégg nga ko dañ ma ko dama saaga. olof la. dama toog ci sa pooju ndey. waaja nag bi dafa rëcce toujours ma joxe exemple bi. ci kii bi. enclos bi enclos. waaw génn tëb fekk paa bi toog euh, maire bi toog ci buntu enclos bi di jaay caaf. saboo nag bi tànku nag bi toj. bopp maire bi maire bi faatu. day faatu. ñu dem fekk waaja fu mu tëdd ñu ni ko këpp ni ko jógal nag wi toj na sa bopp ndey. mu rey ki ko ko wax. nag wa na sa bopp ndey. mu rey ko non saaga wu ko lan la ko nag bi def. saaga la. tey koo fi ni ñun ay maman lañu ñu bëgg lu leen wax ay papa koo ci ni sa ndey. mu ni da nga ko saaga. bu baax pourtant ay ndey la ñu am ñun. soxna yi say ndey la ñu. Hmm. kilifa ya teetlu ya yu baaxoon yi ëllëg dañ daan wax saa ndey. Hmm. saa baay. Hmm. koo ci ni sa ndey mu ni la tu m'as nag bi lañ la def dafa dafa tëb toj boppu. ndey waa bu ko ni woon nag bi toj na sa sa sa bopp maman. wala sa bopp yaay. wala sa bopp yaay ja du ko du ko rey. benn parti damay ànd ak moom ci li mu wax ah. waaw mais mu wodd ko nag. man nag daan naa ko def mais yow xotti wa ngay xotti ba xuus ca biir man àgguma woon foofu. non yow. waaw théâtre kat nga bu doon wone scénario. waaw man nit yàlla buy waxtaanal société la may awraloog di wax ci awra. waaw non non loolu suñ différence. mais léegi mën naa laa laaj benn affaire. pourquoi nga taamu awra yow. dama ci spécialisé ba laaj président mu def ma ministre bu yor wàllum awra. te da koo jàng woon. dama koo jàng xam man xoolal man damay jóg. ban président ma la jox loolu. Sall laa bëgg mu def ma ko ci réew mi pêche am na ministre élevage am mais awra ko ko téye ci réew mi. Macky Sall nga bëgg mu jox ministre ko mais am na kan la. ministre de la santé mi ngi fi te yooyu yëpp moo ko làmb. wér gu yaram. waaw wutee nag lii. maanaam awra boo wéree sax dañ ko war di toppatoo. awra da nga war di communiquer moom suba ak ngoon. waaye yow lu tax nga bëgg cee spécialisé wu nii. parce que dama gis société bi bàyyi ko ginnaaw te mënuñoo dem sans moom. ma ñëw dimbale société bi nekk mbalit ci société bi. maanaam ma yow daal da nga koo bëgg. Ah, awra ku ko bëgg laa. bu góor beeg bu jigéen bi yëpp. kii dama bul séparé awra rek laa bëgg. ah. eh, hmm. eh, eh. loolu ku ci mën dara nag. dama koo bëgg wax dëgg la léegi d'accord naa léegi. mais lii. léegi dama ba léegi bëgg ñu arrière tuuti. mais waa Jamra ñii nga def léegi léegi émission bi. far Jamra la bokk léegi moom. mais lii waa jamono lañ ko ko tere mais mais dafa am lu ma bëgg ñu arrêté jamono jamono ñëw tere ma bëggum awra bi ma ko bëgg non mais wax bi ñu koy wax nii non ma bëgg ko ne dama ko bëgg ku ma tooñ kan laa fi mais wax bi ñu koy wax nii moo tegginawul mais dama ko bëgg léegi dama doon séddoo àdduna awra laay ja laay tànn lu tax eh. parce que moom moo ma gënal waaw ah, da koo bëgg oustaz eh. Mouhamed Mbaye dafa dem Faas waaw ndama loo bëgg sëriñ ma ne ko mais nga ma droit ma wax mu ne ma ne ko awra ah mu ne ma yow ku réew nga ma ne ko yaa ma ne loo bëgg sëriñ mu ne ma à part awra loo bëgg ma ne ko kurus saa su ma meree awraa ma mën a sedd loo wala tudd yàlla. ah. billaahi wallaahi mais di ngay wérdu lu bari waaw. Hmm, voilà ci loolu laa bëggoon a ñëw. parce que dama bëgg tey ñu waxtaan tuuti ci ustaas yi nekk Sénégal. soit disant ustaas wala. waaw non yow daan jàppee loolu <laughs> man. man boog dama ni. man ñi ma xam bu taas yi ma xam seen kër gi ku fi ñëw ngeen di yee gerte du sañ nag ngeen may ko wala du ngeen ko déedéet lii li ci des dafa bariwul li ci des dafa wax li ngay wax ba pare boole ah, ko biir gerte may nga ah, andi ah, xam nga gerte dafa am lu muy yokkal góor man joxuma la ko pour eh, dama da nga ma ñaan rek ma jox la c'est tout <laughs> waxuma la lu muy yokkal góor joxla man awralog bi maa lay wax ne gerte mu ngi mel ni oto bu essence am jeex mu jaar station loolu la gerte di def ci góor ah da lay def essence. waaw da lay jox essence. sama yoon accord léegi ustaas yi bu la neexee yow nga jàpp leen soi-disant. waaw lu tax mu man dama ni waaw ci laa ñëw man question bi ma ñëw xëy dina ko développé moom. xëy na dina wax lu tax mu wax leen soi-disant. ustaas waaw loolu moom. parce que tey Sénégal. waaw ustaas yi am nañ fi influence. bu baax. ñafe nañ ko nag. waaw ndax bu njëkk ba. waaw ustaas da daan toog du am sax lu mu toggee añ. Hmm. du dëgg parce que bu demee ci daara ji xale yi par deux cent deux cent la ñuy fay par weer waaw dinañ fay ñëpp professeur yëpp ba mu des ñoom. ba mu des oustaz. maanaam tey métier oustaz ak aar bi. waaw ñoo ñoo ñoo jógandoo moog làmb bi. waaw. ñafe nañ ko ba mu àgg benn niveau bi tey oustaz yaa ngi dawal oto yu rafet. wallaahi oustaz yaa ngi am kër yu rafet. wallaahi oustaz yaa ngi ci bi di conseiller ñin ñi. ñu koy jël waaw donc kon am nañ fi doole. ñun suñu télé ba tey am nañ fa Messi. waaw am nañ fa Cristiano Ronaldo. parce que Modou Fall Messi la. waaw euh, Pape An Cristiano Ronaldo la. waaw oustaz euh, Assane Seck euh, Mbappé la. yaa ngi dégg kooku am xam-xam. ak yaa Seyda. nga ne kooku am xam am xam-xam te dal. ñeneen ñi amuñu xam-xam. Assane laa seedeel. waa léegi oustaz Modou Fall ñi am xam-xam ko nit man mën naa seetaan théâtre mu neex mais yow ñëwee li ngay gis ak li ma gis du doon benn. waa léegi oustaz Modou Fall yow li muy wax tegu ko ci téere tegu ko ci xam-xam. booy Fall moom xam naa ne am na avantage bu mu am mën na ci liggéeyal dina mooy saf na nit ñi. booy Fall la ko wax. ku am xam xëy na booyam la. waaw bàyyi ko mu développé njool ngir yàlla rek waaw. maanaam moom. waaw saf na nit ñi occasion bu islam mun a jëriñoo ci moom la. waaw mu ngi wax la nit ñi bëgg a dégg. loolu c'est na rien à voir xam-xam la ko teg day joxe ay aaya. xam nga yow li ngay waxtaan yépp musuma dégg nga ne yeneen bi nee na lii wax aaya bi tekki ko. loolooy xam-xam. mais moom lépp lu ma wax man. Hmm. alxuraan la wala hadis. mais moom loolu dama lay génneel yàq bi. nga mun koo dégg parce que bokk na ci ñàkk mën a wax xam-xam wax arab bu gudd firiwaat ko man de man de amul ustaas bu nekk ci Sénégal te mënumaa toog jël sama temps déglu la parce que ñoom ñëpp ñi ma ci xam ak ñi ma ci xam ñoom ñëppay wax man boobu. man de am na lu ma ci dul déglu. loo xam ne dama def may jëriñ. am na ñoo xam ne xam dara du ma leen déglu man. Ah, si man Modou Fall laay déglu. loolu du ci ñoom ci yow la ak Oustaz ah. loolu nga wax. waaw du ci ñoom ci yow la. Ah. nit mën nañ koo defar. waaw. ba bu ko weñ rombee mu jàng ci dara surtout bu aar nekkee ci yow léppay communiquer ak yow. man de ñoom ñëpp dama leen. la fait que nga mën a déglu oustaz yëpp. waaw du ñoom de. est-ce que xam nga mënumaa mënumaa romb sama portable oustaz buy wax te dégluwuma la mënuma ko. man de duma man man dama leen di déglu ñoom ñëpp mais man gisuma ci ko surtout oustaz Modou Fall man je l'écoute très bien. dafa ndaanaan la la. dafa nga naan ko Boy Fall. il communique très bien. waaye léegi lan moo tax mu naan ko Boy Fall jol bàyyi ko mu dem. dimbali mu yàlla booy la du màgget de. mais ci xam-xam mag la. yaa ko mag. ci xam-xam laa wax ma ndaanaan la ci. de de selon man suma niveau. Hmm. non. mais nangul ko xam-xamam. bañu ma. Ah, bien. reconnaître na nit ki xam nga ak nga nangul ko ci waxinu xam-xam du benn. waaw. ok nit ñi bëgg neen ko. waaw mën na cee jëriñ diine. waaw ça da nga koy reconnaître. Pape Hann. bëgg na yonent bi. mais amul xam ku bëgg yonent bi la. amul xam-xam. non bëgg na yonent bi laa wax. Pape Hann bëgg na yonent bi Modou Fall saf na nit ñi. Pape Hann day conférence ba Amérique. yomb na ba Italie. eh di ko toj. yomb na xam-xam rek lay wax loolu yomb na. man man man man. gis nga tey nga mën a. conférence waaw tey man. waaw. su ma amoon possibilité. Uh-huh. liggéey canal 24. waaw wala CNN. Uh-huh. su ñuy waxati borom xam-xam Sénégal den ma fee bële ndax organe ba ma nekk. Uh-huh. Cheikh Ndiaye. waaw oustaz Modou Fall. Hmm. Pape Anne. Hmm. oustaz Seck. oustaz Seck. Tayib Socé. gis nga mi nekk télé ba. daanaan la. yaa Seyda. Hmm. ak euh, ak Moodu Fall mii. saa ma wax la dara. xaaral xaaral maa ngi ñëw. Hmm? maa ngi ñëw. Hmm? ak ak Paafiri Gént xam nga ban oustaz Paafiri Gént. Paafiri Gént xam nga ak ban oustaz. <laughs> Euh, Matar Matar Matar. Paafiri wax. Njool oustaz Matar <laughs> xaaral dama koy <laughs> waa xaaral oustaz Matar euh, ah? moo nekkoon Seneweb ak problème ak. moo moo nekkoon Sénégal. waaw mooy Matar Sarr. waaw moom la Matar Sarr Fatar Sarr ak Matar Sarr. je l'écoute très bien moom aussi. ana yóbbalu fajar bi oustaz Mor Thiam. waaw. ma kooku tam. waaw moom laay wax oustaz Mor Thiam man laay wax. Hmm. tey ànd ak yaa Seyda Mor Thiam géwél mat nga indool mat nga indool eh, référence Mor Thiam géwél. non amul ma oustaz man man oustaasu Sénégal yi ils sont très forts. ma expliqué la dara léegi sans. waaw léegi moom man nag lii muy wax man kaa la ma def kaa. daf leen a xeeb. entre Modou Pape Hann. waaw assan Seck. waaw soo laajoon sénégalais ko ëpp xam-xam dañ la naan Modou Fall surtout jeeg jeeg jegemaar yi. surtout jeeg ji ak jegemaar gi waa Europe. mais oustaz Assane Seck. mën na leen a boot ci xam-xam di dem. mais ñi ah. leen ko ëpp xorom ak bay rek mais yow ñooñu yaa leen ëpp xam-xam yow. du benn du match yow. waaw kon Sénégal kan nga fi méngaloo sa bopp xanaa kon Ahmed Khalifa Niass ngay méngaloo sa bopp bu ma toll rek Ahmed ah? ñu ko tol tëkkaleeg Ahmed Khalifa Niass ayatollah nga kii nee na bu ñu hmm. yaa ko ëpp xam-xam du benn ma du benn ma moom nawetaan la man Ligue des champions la xanaa yow xanaa xanaa nga ayatollah xumee ni waaw ayatullah mooy garaat boobu ñuy joxe. waaw weesu naa ko. yow xumee ni yaa ko ëpp xam-xam. Hmm, ci turu yàlla moom ëpp xam-xam. Hmm. mais ci xam-xam kese non. léegi yow sa xam-xam ci lan nga koy utiliser exactement. Euh, fu société bi faible rek ma fatt ko. fan nga gis ni fi mu toll nii société sénégalaise dafa faible. mooy xam lan mooy dëgg. lu tax. daf leen të. lan la ndax ñi ñu war a déglu. waaw ku ci nekk ci sa bopp nga nekk nekkoo ci dëgg. man am naa lu ma tuddee réew mi ki ma neex ak li ma neex man loolu laa jàppee Sénégal et c'est vrai li ma neex ak ki ma neex xam nga tey waaw waxoon naa ko ak Cheikh démb waaw su fekkee politiciens yi lañu yaakaar ci administration waaw yaakaar njiiti aada yi ci suñum cosaan waaw yaakaar njiitu diine ci suñu gëm waaw yow mu leer la mm. bu caméra yëpp fayee mm. dinañ yëkkati nit nañ yitu diine la te yow amoo dara looy roy ci moom. Mm-hmm. ndax nawoo mm-hmm. mais nag ci maslaa société bi dem doo ko tudd. mais est-ce que jàpp nga ni yow. Mm-hmm. fi fi fi fi nangul nga ma loolu. fi waaw mais. beneen bi mooy politiciens yi. waaw dañuy ñëw am seen intérêt personnel. waaw au lieu que ñu ñëw comme kayit bu weex. dañ la naan askan wi moo leen ñor askan wi la ñuy xeexal. te bu ñuy négocier askan wi du dem. askanu Sénégal toujours mooy victime ci politique moom la ñuy rey moom la ñuy négocier moom la ñuy jël alalam moom la ñuy nax nga gis kilifa aada goo xam ne politicien bu ko neexal moom lay àndal xoolul li arrangé aada ci Sénégal te diine ak aada mooy ñaari tànk yëkkati Sénégal ba muy Sénégal nag su caaxaan jeexee donc askan wi mhm. dañu réer ci dëgg mhm. man dama ñëw pour dimbale leen ñu xam dëgg lii laa leen dimbale mais que def nga ni Ahmed ci ay ci ay waxtaanam moom jàpp na ni 60 pour cent des sénégalais jokk nañu ci moom ak ak ak ak gëm li muy wax amul amul beneen phase xooleewul la feneen fa. parce que ñu bëri aussi mën nañu jàpp ne Ahmed Cissé sexologue la kii daal boo ko dégloo mbiru sexe lay wax. Ahmed Cissé dafay xulloo Ahmed Cissé day clash Ahmed Cissé par man par man man man ci sama gëm-gëm jàpp naa ni lii muy wax nii ci wàllu ustaas yi gëmu ko il provoque moom. Hmm. man dama jàpp ni moom nit koo xam ne la. Mhm. moom nitu jàmm la. waaw ci intérieur am. Mhm. tey laa ko soog a gis. Mhm. peut-être une fois sunu oto yi croisé nañu nii. waaw très bien loolu. ci kaw bi wax xaju fa. maa ngi koy soog a gis na mbaa xam wax nga ma kooku baax la pourtant nangam nangam nangam nangam nangam nangam. mais man dama gis ni moom. dafa bëgg provoquer. il provoque la personne. kooku wax. mu taal laay fam bàyyi ko mu ñëw ci loolu moom dafa bëgg dafa bëgg safara moom dafa bëgg ci loolu waaw dafa loolu waaw ci àddinaam la bokk ñëwal ci loolu waaw lenn moo moo mooy moo ci nekk mooy audiovisuel dafa am nu muy demee waaw te mbir mu nekk tendance moo koy yëkkati man hmm. tey su ma toogee ma ne waaw oustaz Mor amul xam-xam hmm. moom dafa war a sawar mu jël ko light li ne kii su ma nawle doomi daara la waaw mënuma doon noonam mais nag comme géewi xam-xam la bëgg. dafay arranger askan wi. mu toog foofu ma toog fii ñu waxtaan ci xam-xam buñ paree rek xam ne ñoo bokk ndey ak baay mais ñoom dañ koy jëlee xool bile sow. dañ koy jëlee lu diis. waa jëlee la noonu. Mm-hmm. di la daw ak a mm-hmm. maa ngi gën ci yàlla. lu mel ni mbañeel ci benn doomee dama buy dund. Mm-hmm. bu nekkee ci man yàlla na ma yàlla far ci jiwaani wala amul gis naa ko ci sa amul amul loolu leer na mais tey lan moo dàqoon. waaw ñu ne tey ngoonal dafay am Modou Fall Cheikh Ahmed ak Pape Anne nga am question xam. non man loolu bëggoon naa bëggoon naa ko mais diine du concours diine de non non non xam la xeeb na laa toog ak yow plateau pas diine waaw xam mooy concours. mais diina du concours. mais xam-xam dangay ngay euh, euh, Ahmed Cissé xam-xam da ngay commencé fii toll fii keneen commencé foofu toll feneen keneen commencé foofu toll loolu jarul toog ci plateau di ko débat. non su fekkee si c'est le cas. waaw kon jarul toog ci plateau jàngale diine. en kay. merci la sa bopp la sa bopp mën nga koo jox keneen. parce que du nga ko xam nga ni may jàngale waaw nit ñaa ngi may déglu. waaw mm-hmm. ñu ngi may topp. waaw Modou Fall ñu ngi koy déglu ñu ngi koy topp. mais dañu wutee ñu ñuy jàngale. une fois déglu naa la ba sa laay fi jeex parce que boobu man jàppoon naa ne li nga wax c'était très intéressant mm-hmm. te loolu yàggul. Mm-hmm. mbaa daanagul fii de. bul jékki après dinaa ko wax demal donc li ma bëgg a expliquer mooy. waaw moom am na façon waaw man am naa suma façon waaw kay mais tey bu ñu dajee woon waxtaan waaw yow waaw di nga mën a dégg beneen dimension boo déggutoon parce que yow sa aar waaw xam nga tey suñu waxee soleil levant waaw am na ku ñuy jàpp ne mooy star waaw mais star boobu am na ku ko dimbale talaam génn waaw ndax da ngeen def loo xam ne man mi koy seetaan damay xam ne lii du répétition dafa ñëw naturellement waaw mm-hmm. mais naturellement boobu dafa may dajji ba ma aju dajji suma morom mm-hmm. mais su kooku dekkutoon ki ñu tuddee star du feeñ. Mhm. te pourtant star bi am na meloom. Mhm. moom kenn rek nga jox ko micro mu reeloo la. Mhm. xam na xam comprendre nga fi may waxee loolu dafay neex. mais diine moom du concours. loolu moom dama ci d'accord ak yow. mais xam-xam. concours la. ba ci daara ja sax sëriñ bi leen jàngal balaa ngeen di dem day laajte benn masala ku ne wax na nga ko xalaate mais da ngay toog déglu kenn wax nga am ci déggin boo ci déggutoo. mais est-ce que xam nga noonu noonu noonu noonu ngay toogee. Mm. saa neex génn kenn zappe ko beneen artiste keneen comédien génn kooku mën ko seetaan. waaw parce que actu saa neex neexu ko. noonu ngay toogee am na ñoo xam ne oustaz Modou Fall ak ñeneen ñooñu la ñuy gën am mm. amet si sa génn mm. ñu zappe ko. Mm-hmm. comme ñoo xam ni oustaz Modou Fall mën na génn wala keneen ak keneen. Mm-hmm. ñu zappe ko kii rek la ñu mën a déglu. d'accord naa affaire boobu rek la. ku nekk ak ki nga mën a déglu léegi daal am solo ci si c'est le moo tax tey boo leen boo leen mélangé boo leen yow mburu nga bëgg. waaw. man chocolat laa bëgg. bu ñu la boolee mburu ak chocolat dafay intéressant mais am na ñu dul lekk mburu ak chocolat. Mhm. waaw day am. waaw am na ñoo xam ne Modou Fall safu leen Cheikh Ahmed safu leen. waaw bëgguñ ci ñoom ñaar kenn. waaw am na koo xam ne mënut a diseere kenn ki. waaw mais tey dajee boobu. dafay dimbale li Cheikh wax ne ustaas yi am na fu ñu yóbbu baar bi ba mën a dawal oto mën a am ci jeeg ji mën a tukki mën a am passeport diplôme mën a wax ak président. Mhm. loolu mérite la. Mhm. mais tamit lii may wax nii. dafay dem. d' accord na yow man mooy li ma lay waaw pare naa ci ustaas yi ma léegi dama dama dama dama la moom moom ci jàngaleem sa jàngale ci lan la gën a wu awra moom koy wax na la loolu sama waa ji waaw léegi nag après mu ni dafa ëpp ñu la xam-xam ah mais awra xam-xam la mais du <laughs> awra xam-xam la. man daal xam naa ni daal man daal. loo xam kii man daal jaaxal na ma ne wax. moom <laughs> mais kii tamit dañ koy bàyyi nii rek ci réew mi nii tamit. Ah, parce que dafa mën a voilà ci loolu laay mais réew mi bu fekkee ne ñëpp a ngi toppatoo lépp. Hmm. ñu bàyyi li nga xam ne moo war a jur beneen génération. Hmm. duñ ko toppatoo du baax. man lii may def nii maa ngi koy defal sëriñ bi ci mënta wax. Hmm. docteur bi ci mënta wax ñoom lay liggéeyal. taa waxoon nga ci mu indil tolof tolof de defe naa. ah non niveau bi la. niveau ban. par niveau bi ma toll. moo leen raw. ak niveau bu ñu déggee ñoom. moo tax ma wax ko ñi ma doon entendre ma ne leen dama soxla suma PV ndax jamono ngi ñëw dañ leen di reetaan ci entender ngeen nit ci propos yi la joxe. jox nañ la PV. bañ a jox maa ngi ko téye. yow ñooñu juba nga ak ñoom tey ba ba bokk ak ñoom ASC ak e yëpp. man de ku ma yóbbu kaso ma def la noonu. moo tax xol moo tax xol non doo mën a yóbbu man xam nga bi ma duggee ci kaso bi. ku baax la de dama woo Mame Makhtar Gueye hmm. wax ko wax yu rafet na ko bu ma génnee dama la bëgg teral jox leen ñetti billet ngeen dem ziare Cheikhu Tidiane. moom sa anniversaire mu jox la lan. mu indil ma kaamil al. loolu mooy jàngal loolu ma ko dalaa woon ne moo la ëpp xam-xam. donc. Euh, kooku dalaa foofu de. non non joxe kaamil alxuraan a nekk saaga. loolu mooy jàngal. mais pour wan la ne. Hmm. dafa am àtte yoo xam ne diine da cee taxaw. Hmm. ndax jamono jooju fa la yemoon. Hmm. te islam pour ñëpp la fépp la ba faw. gis nga ci sëy. ulamaawul fiq yëpp d'accord neen ci ne hmm. man hmm. su ma amee feebar buy wàlle hmm. dama war a waxtaan ak suma soxna waaw ne ko lii ma dal may ma taama faju dëgg la soxna si am suwaawu muñ ko ñu def separation de corps su ma munee muñal ma faju baax na su ko mënul mu ne ma may ma ngànt damay dem sëy bi day tas science ak islaam nii la ñuy def ñenn ci jullit ñi science da leen raw santa ans defar lu ñuy wax protect mhm. cosaanu protect moo doon nga am rapport ci kaw kaaraange du pour njaalu dëgg la mhm. it was made for safe sex mhm. war a jëfandikoo kàppoor comme ni mu jëfandikoo rajo Wally sekk ci lay ritambale Pape Diouf di ci kas-kas imam bi di ci jàng alquran kon rajo banut waaye jëfandiku bi la ñuy laaj est Mm-hmm. mais mm-hmm. comme ni ñu jëfandikoo kilim ci biir jumaa mm-hmm. comme ni ñu jëfandikoo sijaada wala alxuraan sa machine a koy defar bindatuñ ko ak loxo. dëgg la. nii leen war a jëfandikoo protège ngir sove mariage ndax boo gisee ni yàlla tegee processus su tas. nga xam ne lu bañ la. xaddis wax ne. ab xadul xalaali ilallahi talaaq bokk na ci li yàlla daganal ba pare bañ ko mooy fase kon yow da nga jàpp ni. kàppoot boobu. sama wax. waaw lu ñu waroon a reconnaître la ci lislaam di ko digal jullit ñi nga xam ne ñu ngi sëy ci ñaari mbir benn dangay def family planning bëggoo sa jabar ëmb hmm. ñaareel ba bañ koo wàll feebar kon yow da nga gis ni lii leen ma jàppe woon mais biñ ma jàppee ba pare xam ne ne dañuy da dangaa gis ni hmm. parce que mën na dal nit mhm. gis nga ci ñi ma xam ñu toll fenn fi ci wàllu lislaam hmm. dëgg dëgg dëgg dañuy am kersawu waxanteeg seen jabar yenn yi. merci moom dama dama def dama dama ci sama xalaat dama defe ni. Mhm. dafa jàpp ni ñooñu lenn li mën na leen dal. Mhm. ñu rus ko wax seeni soxna. dem àgg seeni kaw wàll leen. Mhm. te day am. te it rus a utiliser li ñuy wax. protect préservatif. parce que am na ñoo xam ne bu ñu tolloo benn niveau bi ci kii dañoo xaraamal tifaaxan. sëy ak sa jabar ci kaw protect. ndax sa jabar sa jabar am na sax li nga wax am na ñu dem ba mënuñoo xool seen awra jabar pour dëggal la yow waaw mhm. léegi nag ñooñu delloo si waat leen wax leen ni par exemple boo tolloo ci benn feebar bi te mënoo téye sa bopp mhm. wala sa soxna toll ci benn feebar bi te mënu leen muñante mhm. utiliser leen nàngam gii nga xam ni technologie moo ko génne pour ngeen aarante ci yéen ñaar ma yokkal la dara waaw man dama am allergie waaw benn bis ma dem pharmacie pour jënd ko. waaw ma taxaw rek gis ñu taxaw comme nante la. jënd lan. jënd garabu al garabu mais ni ma duggee suma su ju rafet. waaw ma gis yenn nante mu leer ma ne situation bi ñii lii leen bëgg ma ne ko eh yuuxu ci kaw jaay ma protect ñeneen ñi xam nga lu ñoo jaay ma lim jënd. Hmm. parce que rusoon nañoo wax sa jaay ma. mais yow allergie bi lu tax nga rusoon koo wax. non non dama ne maa dugg ci pharmacie ngir jëndi garabu. allergie. waaw ma gis ñaari góor taxaw ma liir seen situation. mu leen dañuy taxaw man xam nga man. mu leen ma ne ñii nante man jaay naa pharmacie 4 ans. bu ñu ñëwee dañuy am kersawu. merci il faut que pharmacie bi. vide ñun clients yi vide ñu ñëw. dee la te bu ñëwoon xam la ngeen bokk koñ duñ ko jënd dañuy demaat beneen pharmacie waaw mais ma ne bi ma ñëwee liir situation comme man maay sëriñu naan tey waaw ma yuuxu ca kaw na ko jaay ma projet te yàlla xam na ne du loolu laa bëggoon léegi bi ma ñëwee ah, non moom amul kersa non am naa kersa dama xam jamono ah? dama xam yàlla xam jamono waaw ci xam jamono yow am na yoo xam ne rus nga koo wax nii yow am na yoo xam ne rus nga xam am na yoo xam ne rus nga koo mais man ku am kersa laa ci kan côté lépp mais su dëgg jotee wala dimbale doomu aadama kersa duma xañ dimbale. non dama lay laaj ndax na am nga loo xam ni ruus nga koo wax ci média. lépp lu ma war a wax. waaw kersa du ko xañ. non dama lay laaj ndax am na loo xam ni man parce que man am na loo xam ni ruus naa koo wax ci média. ak fi ma toll ci aar. moom laa moom laa lay tontu ma ne. tontu ndax yow loolu arrivé na la oui bi mooy waaw. su ma waree wax dara. waaw aw ma média bu ma rus ak nit ku yàlla bind nga teew ma rus ko wax. yow ci ban côté nga gën a spécialisé wu ci loolu comme que looloo sa spécialité ci ngay dimbali nit ñi. Euh, parce que loolu nag kaay ma xamal la dafa bëri ay pa ay panne de. ci awra góor. très bien. non loolu spécialisé. awra góor laa gën a spécialisé parce que parce que waaw parce que bi ma jàngee awra. jigéen moo gën a mën a moo ëpp euh, cerveau moo gën a mën a denc mais awra góor a gën a sensible. moo gën a gaaw a yàqu. waaw. te alquran dafa wax ne arrijalu qawwamuna ala gën a gaaw a yàq léegi qawwamuna moom laa jug nag jigéen mën na fo maari taali xaaral jigéen mën na fo ba dootul am parce que kaay ma xamal ni ngay puissant wee yow góor jigéen noonu lay war a puissanté waaw loolu ñu bëri xamuñu ko waaw waaw góor mën na fo ba puissance sam wàññeeku mu feeñ jigéen mën na fo ba puissance am wàññeeku doo ko xam yàlla leen suturaal yàlla leen suturaal moo tax nag te ba pare yàpp yi duuf na léegi paaka ñawul moo tax ma indi daasukaayu paaka yi mooy mooy ànd àndalaa bur yi doy waar régu sox loolu loolu doo ko fi publicité da ngay fay loolu loolu duñ ko fi dugal duñ ko fi dugal loolu boo ko dugalee defee da fay mais leneen lu ma bëgg ñu dugg léegi pour man xam nga kër gi laa ñëw kon émission laa ñëw non non kër gi ci émission bi la nekk dégg nga euh, loo ngoo réew dara gisoo dara waaw bàyyi ko rek waaw àndalaa bur yi ñëwu fi soq ñëwu fi euh, ça xam nga tey sénégalais yi dañu naan man Sénégal euh, laa mën a nekk. waaw wala Sénégal neex naa nekk wala Sénégal neex naa amee. waaw maanaam di dox seen maayin di leen nax ba yor xaalis dem taxawee na leen. waaw bëri na ñu koy def. man parfois dama koy gis ci moom moo tax il faut ñu bàyyi ko mu wax. Mm. ñun ñu xam moom lan moo ko yëkkati. Mm. parce que moom ba mu fële yàggul. am na ñu ko fi jiitu. yàlla suturaal na ko ci gaaw gaaw ba mu ah, jógee Gambie di fi àndaale wu mu fi am. dafa daw ci maaynu sénégalais yi. Ah, mhm. tey mu ne Macky Sall laa faral suba mu ne Sonko laa faral ginnaaw suba mu dem TFM jooy ginnaawaat suba mu dem 7TV jooy fa est-ce que am naan baax li mu bëgg a wax. Ah. suba mu saaga diw ginnaaw suba xam nga yooyu tey. waaw yoon la yoon la ñun ñi xam la. te buñ la xamee ay la yéwén nag li ngay jaay day jar wax na ko de. li ngay jaay day jar na damaa xam réew waaw moom wax na waaw dégg ma fi sax barki dem ne dafa bëgg nekk président Sénégal dégg naa ko de dégg naa ko fi sax ah nante yi ñoo ma ko wax ma nante ñoo la ko wax yi ci dëkk bi yëpp seen Serigne Cheikh waa léegi li ma la wax nii yow lan la yow lan est-ce du loolu moo la jug yow da question boobu jógee Gambie ñëw na xaaral ma dem Sénégal nax leen delluwaat Gambie wala lan la bu dul loolu nga ne ñu du loolu damaa ñëw ci gétt ak lëg gétt ak lëg lu fa war a am te ma gudd nopp non da nga bëgg wax ni fii naxante daal moo fi daw. mais mooy dox. naxante mooy dox Sénégal. Mhm. kon yow ci naxante ngay dem ak ñun. man nitu intérêt la yàgg naa ko wax. waaw loolu waaw kon ci naxante ngay dem ak ñun daal. lii rek moo fi am. ah na tu es tu es tu es mhm. ci laa du nekk sama sëriñ abadan. du nekk sama sëriñ abadan. non kii mu daa mën a nekk sëriñu kenn. parce que man. kii jéem la nekk sëriñ kenn nee na la ma warul ay taalibe buggul nekk sëriñ wax dëggoo loolu. parce que man. bi ma deewee nii ni moom moom moom mooy moom mooy ñëw li sama xel ñëkk a dem honnêtement man je suis honnête comme lui. Mm-hmm. te moom xam na xam moom war na am tuuti ni moom moom dàqumaa wax li ma xalaat. Mm-hmm. damaa ñëw ba am benn âge bi toll fii ci aar wutatuma buzz wutatuma ku ma xam may wuti koppar rek mais moom xam naa li muy dem mm. man sama xel fu mu ñëkk dem. Mm. dama ni kii man Cheikhou Gueye mm. bu ma mayee xaalis du ma ko jël. bu ma jaayee ci yëfam yooyu du ko jënd ci moom. Hmm. lu bu tibsee wax ko. luy bu tibsee wax ko. moom. waaw. Ah. <laughs> bu la jaayee ci àndalaam jooju boobu. non non non bu wax loolu yow tamit. ah bu tax bu bu. boo ko tooñee wala. xalaatam la wax. waaw sama xalaat da koy wax de. mën na koo wax de. déedéet non du ma man loolu laa jàpp. yaa ngi fàttaliku bi Kaliphone dóoree woon Adja Thiaré. non suivre ma man maa ngi koy est-ce ah, man suivre naa loolu. maa ngi koy fàttali est-ce que xam nga Kaliphone sama xarit la. waaw Kaliphone maa ko njëkk defal publicité téléphone. xam nga fu ma fekkoon. Hmm. butiku Samba Kende Bonavita. Hmm. acca ñëwal. xam naa ko. bi mu dóoree xale bi. waaw. maa doon seede bi. biñ taxawee tribunal. Ah. avocat bi na ma ndax kii mës nga koo jox sa garab ma ne ko du ma wax suma client. ok dama la dama la doon cooytu rek. ba xam ndax parce que c'est c'est très sensible. di ko jaay ay nit ñu ñubbatu ba pare di ko wax. léegi beneen bi non dama la doon la doon xam na. yëngal tuuti waaw Sénégal ndax ñu ko def rek. dafa am nu ñuy doxee. waaw te yéen ñaar ñi bu ngeen xulo woon. waaw dañuy bëgg sawar. Hmm. si yëpp di daw. waaw xuloo bi ñoru leen de. dañuy seetaan xuloo bi ngir xam nan la ñuy jàppee sànneex ëllëg. ma hmm. defe ni coow li moo hmm. kaa bi. ñu woyee di ñoo koy topp rek mais duñ ko men te teg di leen xool. pour xool lan waaw keroog bañ mandé kii naan la bañ yéegee avion su ngeen xuloo ba mu dal. Hmm. Sénégalais day natt fan la la war a jàppee. Ah. tey su ma waxoon suma benn clientèle ñàkk ñëpp. Hmm. très que dama. comprendre na léegi da ngay gis ne. Hmm. man suma classe bi ngay wax. waaw seetlu ko Cheikh ku ma mus tudd ci internet yaa ma tudd. mais man mës naa yéen ñii bi ma nekkee xale laa leen doon seetaan. waaw. Ah. mosuma mm-hmm. leen tudd. dëgg la. Mm-hmm. te yéen ci réew mi. mais defal nga ni teraanga tudd ko mës nga ko def. non. Ah. man dama koy fàtte. ok. Mm-hmm. dama koy fàtte. ok da ngay gis ne tey yéen. waaw bu fekkoon ne pour tooñ ut bës rek la. Mm. yéen yéen a doon potentiel. ndax da ngeen am fu ngeen mën a tontoo. xam naa loolu bu baax. man mm. su ma waree cuq am xam naa fu may dem bës. xam na fu muy bës ndax ñun dañoo am fu ñuy tontoo ñun. mais dooma doo ma dugal mais soo ma tooñee nag dinaa mañeeru sa kaw ba nit ñi xam ne pànk laa ngir ma mucc su ma sëriñ dafa digaloon suma bàyyi na ko taalibe dafa yomba xeeb boo demee ci dëkk bu ñu la xamul ku la njëkk tooñ bu ko dóor de yëkkati ko ba ci kaw nga woowaa dëkk bi ñëw nga fétti ko ñëpp lay daw mm-hmm. bëriwuma fitna mais Sénégal foog nga protéger sa bopp kon léegi li ngay liggéey tamit moo la may ngay dem ay boîte ay tey ci Waly suba ci Pape Diouf ci euh, Assane Ndiaye. dama am dereti ceddo ci man wéy da koy yëngal. sa bëgg-bëgg la waaw bu sabar ñëwoon rek ma mañeeru. nga dox sa bëgg la mais loolu ce que ak ak diine ak ak euh, diine terewul. moom doxul diine bi de njool. moom nee na la moom wul diine nee na man su ma la waxee dara mbaa du rëy. Hmm. lan. man duma ma jullit. non waaw après man dama la puus na man duma jullit ah. luy loolu. man duma jullit. lan nga. man muumin laa. mais yaa ngi julli. su ma ko sentiree ah. ah loolu loolu loolu bëgg-bëggam la. non non lii lii exclusivité la bàyyi ko mu dem de. waaw waaw ma ko waaw dimbale ma ngir yàlla rek nan wax lu tax mu ne nga ni. man bu ma ko sentiree. a dem jàpp. mais xam nga lan nga koy wax. xam nga lan nga koy wax Cheikh Ndiaye. Ah. moom. Ah. dafay corné ay waxam. il est très intelligent te waxam il foog nga toog ni tekk am intelligence pour mën a xam li muy wax. waaw waaw kay parce que moom déglu ko. moom boo ko jàppee ci mouvance bu muy waxee rek da koy jëppi wala nga daanu. fekk waxewul foofu. il est trop intelligent. parce que toujours day am explication. il est trop intelligent non mais dafa ne julli bi non mais julli bi moom c' est clair li mu wax dafa ne bu ko sentir lay julli. dina fekk ci tontu dama ko seetaan laay fam. waaw waaw mais xam muy wax ci ci ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. waaw wax ba am fu mu àgg. waaw loolu d' accord keroog dama ni gis nga kii dafa garaaw. njool xam nga waaw xaaral maa ngi ñëwaat ci li ngay wax nii. waaw kay waaw. parce que dama wax ba ni. li ma desee bariwul. ñi dégg. waaw laay waxal. waaw ah. ñi ma déggul buñ ma saaga bu ñu commenté. waaw kay. si sama niveau laay waxee. waaw kay sama niveau nag ku ma fi fekk si mën ngaa déglu live bi topp ma. mais ku déglu fu may waxee bul commenté bul ma tooñ. d'accord naa loolu. léegi danga koy expliquer moom lu tax nga ne yow doo jullit. ma kay parce que man bu fekkee Cheikh Ahmadou Bamba la wax ak yooyu. waaw mën na wax niveau am. waaw mën na wax ci beneen wax am mu laaj déggin. waaw mais man ak moom ñoo jàkkaarloo. mu ne julli bi da koy sànni ban genre personne la moom. dafay dugalaate maanaam mm, nit ku baax ku ne waaw jullit gàcce la ci yow ngir nga wuyoo ko ndax liir bu judd jullit nga ndax liir bu judd rek jullit nga waa jullit mooy tàmbaluwaayu góor yàlla léegi yow nga ne doo jullit non dama ko weesu ma doom ji ci daara ji sax xanaa war julli léegi julli bi ma xamal lislaam dafa ah, d'accord naa loolu bu la neexee njool wax am na am na am na am na dëgg léegi ndax li mu wax fa nga waxee ak fa nu déggee bokkul d'accord na léegi nga ne doo julli boo ko sentiree ngay julli waaw parce julli bi entrainement la ngir julli dëgg-dëgg. ci nan ci wan fànn. entrainement la mooy dafa am lu luñ la sant nga koy def juróomi yoon ngir mu togg la. Mhm. julli bii mu ngi commencé allahu akbar yàlla rek a màgg. Mhm. war na la puus ci nga xeeb lépp ba mu des màggaay yàlla. Mhm. booy taaya. yaa ngi naan assalaamu alayka yaa ngi jàkkaarloo yonantu te say bët mënu koo gis mhm. nan la xol bi mën a laabee ba ngay gis yonantu mhm. su boobaa nag nga yegg ci asalaamaaleykum jàmm mhm. jàmm boobu nag fa la maam Cheikh Ibrahima Fall nekkoon ba yow nga jàpp ne du julli comme ni ko see Ahmed waxee te mu ngi doon julli ndax sañ Touba ba muy génnaat ne dafa taalif teg ci dënnam bi ne gëñ na ci yàlla ne julli na waxtu bi passé te bii ñëw fekkut ko fi te sëñ Cheikh Ibrahima Fall taalibeem la te musta taxale kook moom te du daan julli loolu noonu Cheikh Ibrahima Fall toll woon góor gu ne da fay toll soo fa tollee nag ngay xam ne lislaam baax na lool taaru na waaye am na lu ko kawe jullit bii ñuy julli baax na lool waaye am na lu ko kawe mooy ruuxu gi day sujjóotal yàlla te dootul siggi xol bi des ci yàlla ba lu yëngu fàttali ko yàlla. mooy nga focus rek. ci yàlla rek yow bu ñu la gisoon sax nga nga nga toog ñu ne teg mel ni kuy théâtre théâtre. yaa ngi julli. yaa ngi julli. Mm-hmm. dégg naa la. julli te maanaam defoo acte merci. loolu bañ laa wàcc sa giiru dund foo tolloog foo mën a ne xol bi mu ngi ci yàlla rek ak ruu gi mu ngi ci yàlla focus ci yàlla mu ngi ci loolu nag ki ki gën a dof mm. mooy ku tënk yàlla ba ne artiste comédien mënu koo am man de mënu maa am gën a dof mooy ku tënk yàlla ba ne artiste musicien mënu koo am ki gën a dof mooy ku tënk yàlla ba féttalee ko mbàkke ñas wala si yàlla amul sant non xam man man man man xam tax man mënu maa donc yàlla jooju nag mm. yow mii mën nga koo am loolu loolu pour am ko loolu fatu la benn bis ngay ñëw rek àdduna ubbeeku ci léegi pour am loolu nooy def bokk na ci am ko mooy bëgg yonent bi wala bëgg ko bëgg yonent bi bokk na ci am ko mooy dem ba mënatoo bañ nit ku fa yegg rek danga koy am seex bu la defee sa nga xool ko di nga defanteeg seex ngir protéger sa mbirum àdduna waaye au fond ci xol bi du fa yegg xanaa xamoo Cheikh Sarr Zik FM xam nga ko waaw sama la damaa toog rek su ma woowee du ma ko jël hmm. du ko woo damaa dem ba bëgg ko te man bëgguma bëgg ku yàlla ma ba ko defuma dara su ma demee ba mu mbëggeel gi wér ma delluwaat këram bu ma accepté ak bu ma accepté sama fu mais xool bi bëgguma ku yàlla dugg ci mais man man man man nag damay toog nii téye amoon naa iPhone 13 Pro Max ma dem ba su may nelaw bëgg ko ma toog rek maye ko parce bëgguma mu am cër ci xool bi Pape Diouf may yar laadum. Pape Diouf bëgg nga ko de. bëggal laadum su ma xar yi bëgg ma toog rek maye yëpp. loolu tax bàyyi woo ca Pape Diouf te bëgg ko. non Pape Diouf yeggut ma suma xol bi fu yàlla di yegg ay xarit lañu mag ak rakk leen ñu ngi doxal suñu mbiri àdduna ñu ngi ci mais dama leen bëgg yow mi su ma demoon ba koy am ci yow ba mu leer ma ne parce que yàlla mu ne xajuma ak xol dara. Hmm. loo ma fa nekkal ma ba yow nag bëgguma yàlla génn suma xol bàyyi la fa Cheikh yow da ngay nelaw. di fàttali dëgg dëgg. mën nga maa jéppi nangu naa mën nga toog sax sa neex na la bàyyil nangu naa loolu waaye man julli bi laa nangul ba léegi rek waaye nga wax yëpp nangu naa donc jullit bi julli gi moom teg entraînement boobu moom non julli da nga ko war di def julli bi parce que niveau ba Cheikh Ibra Fall tolloon ba koy def mënoo toll niveau boobu waaw mooy mooy li ma la mooy li ma la tënk nga yàlla waaw yow déjà tënk nga yàlla mooy yëkkati nga Cheikh Ibrahima Fall wàccee ma te yow demoo fi yàlla di la ba ci suuf xam nga lu tax maa ko yëkkati ba ca kaw wàcce la yow dëggati yaa ngi tënk yàlla ci Maam Ibrahima kaw Cheikh Ahmed ci suuf bu fekkoon ne dem nga ci pay bi yàlla di tappalee garaat hmm. Hmm. nga fekk tappaluñ ma hmm. boo wàccaatee dama gisuma la fa ma ma gëm la mais demoo fa xamoo ko dëgg la sa gëm-gëm nga waxee. dama lay nangu mais xamul fu la yàlla toog. xamu ko de fi xamu ko. non mais gëm-gëmam nag moo ko moom parce que sa nit du rëy. deful loolu. li nga insisté nii defu ko il prie. sa neex. julli waxtu yëpp. seexu ma wax la dara. ma wax la dara seexu. nit du rëy. Mm-hmm. bët ba koy xoolay rëy. fi sëñ Bamba yegg murit ba buñ ko tuddee mu xëlëf xëlëfi yeggu fa tubaab bi ko doon jéem a sondal. Mm-hmm. àgg na fa tubaab bi tubaab bi daa siisu rek non su ko amoon su ko xamoon tubaab du bañ njëriñ euh, tubaab dafa jàppoon non non tubaab dafa jàppoon sëñ Touba muy menace su intérêt waaw mm. ah, kay waaw te fu sëñ Touba jëm ak fi tubaab di xool du benn lii poñeti àdduna bu leen ñor xam na moom seexlu na tolloon mm-hmm. mais ba mu demee nag ba xam ne kii du kuñ mën a lor mm-hmm. dafa fexe protéger protéger ko ba nit ñi buñ xam dëgg-dëgg sëñ Touba d'accord na cinq moo ma dese xam nga fu ma bëgg ñu dugg mm-hmm. Sénégal fu mu toll selon yow parce que toujours ñu dégg nga wax ci sport boobu moo tax bi nañ koy résumé sax tontu résumé. réew mi Macky nee na demul deux mille vingt quatre. ñii nee nañ Sonko du dem. ñii nee nañ kan ak kan moo war a nekk président réew mi loolu lan nga xalaat. situation politique gu réew mi ah Amadou Ba. Amadou Ba mooy nekk président. digg ginnaaw bi bi Amadou leen ci bind su mooy toog. foo teg loolu. Amadou Ba defe naa. Amadou Ba rek mooy gaañewuñ ko fa woon. Amadou rek mooy ki am benn potentiel. Amadou Ba dañ ko gaañoon parcelle parcelle. ah bon. waaw même dakaar bi. dañ ko gañe woon Dakar waaw. Sénégal sénégalais ñoo sanctionné Macky Sall. ok kon Amadou Ba moom lay Macky di def numéro 2 nii moom lay Macky di sam. dama ne Amadou képp kese. dong rek moo am lii ma lay ñëw wax si. ñëwal. bu la Macky la falee nga jël réew mi bu la falul nga jël ko moom rek koo am ci potentiel. fi mu toll nii. fi mu toll nii. ok bu ko Macky jiitalee mu jël mu réew mi bu ko jiitalul mu jël réew. kon bu ko Macky jiitalul day bàyyi. bu ko Macky jiitalul bu bàyyiwul bett boppam. Mhm. ndax ñaan ñaanlu na ba yàlla nangul ko ko xol yëpp bëggandoor neen amatu Ba te koo ci laaj benn parole am bu mat mënu la ko nettali sincèrement ndax noppi gu mat gi nit ku baax la ah, ah Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye sénégalais yëpp leen bëgg ma wax la dara xarit xarit xarit waaw Aly Ngouille Ndiaye aussi sénégalais yëpp leen bëgg vraiment nit ku baax ñu noonu Aly Ngouille Ndiaye nga ko non xaw ma ko ku baax la waaw moo ko am waaw léegi nga ne ci Amadou ma wax la dara ci Amadou waaw tey bu dee sonk demul hmm. parce que Sonko dina dem wala du dem noo gëw ma mu dem mais man bugguma mu dem ndax gaw ma politique am franchement yow faraloon nga ko fi. faj na ak far du benn. ah da nga doon fay yu. moom xam na ko ñoom xam nañu. ok. léegi ma tëj ko sama mère muy kebetu ci justice ma ànd ak moom bu mu jeexee rek la jeex. waaw. dañoo bokkoon lu ñu naqari rek. waaw bokkatuñ ko jeex na. waaw waaw. mais Amadou yi mere Macky sàll yëpp ñooy financé Pastef te mënee nañoo ak Amadou. Mhm. bis bu Sonko demul relation personnelle ya ñu am ca ba ñuy liggéey Sonko day jàppale Amadou te ku Sonko jàppale nag nga jël réew mi Sénégal gi. ah Sonko bëgg réew mi di jàppale kii que ce non su mënta dem. su mënta dem ma waa Pastef dañuy dem. Pastef day samp keneen. Pastef amuñ numéro 2. si ñoom Jomaay ñoom Jomaay yi ngi fi ñoom ñoom mais xam nga ne Jomaay nag ñun ñii rek bu ñu doon woote mënta gañee non yow de Sonko nag yàlla may na ko loo xam ne même boo ko yóbbuwoon kaso tey sax bu wootee téléphone baa mu def appel vidéo ne woote leen Jojo sama nekk président sénégalais yee weesu foofu ku dégloo tur xalif général doo déglu Sonko hmm? Hmm, sénégalais ñoo weesu foofu am na jamono benn xalif général bu ne woote la ñëpp woote mais léegi ka lay xelil ataaya sa du woote dana la sëñ bi yaa fi ne dugg wootel ko ko dee ñëw toog ah bañ gàcce la de donc pour expliquer la Ba hmm. moo am potentiel homme d'affaires yi bëgg neen ko sëriñ si bëgg neen ko ñi xamul dara ci polo maanaam xol yee ko nangoo door te xam nga loolu lu may fàttali hadis si bi wax ne bu yàlla bëggee sànneex doon artiste préféré nit ñi moo koy tànn wax ko malayka yi mhm. malayka yi yëgle ko su sànneex génnee ñëpp consommé ko fekk walaay am na sax moom bi ñuy monté am na lu ko ci neexutoon mais peut-être la ko ca nexari moom en tant que artiste moo neex nit ñi li nga wax dëgg la de loolu yàllaa ko dogal du yow mm. mais bañ koy monté bañ koy def yow doyu la dëgg bu wér nga wax sax. donc ni moo tax ma yaakaar dafa mel ni suñu kii bi jaag jaag bi mooy bu jaag bi. moom moom ma ko doon nettali de ñu ngi toog di añ tournage lañ nekk de. ñuy añ mu may nettali benn léeb la de moom moom mii moom ma ko doon léebal de. histoire réelle la histoire waaw histoire la mu nettali ma ko man man pour ma ree dafa jafe. mais damaa ree ba ba suur añ dañoo añ ba pare ma ne jógal ñu dem ñu tourné ji séquence bi mu ne mooy jëw mooy jëw la ma ko nañ dem tourné ji ko lii dama defar naa ko sama bopp nañ dem dóor ko te bokk na ci ba léegi gaa yaa ngi koy TikTok te day jàll donc pour expliquer la que moo am loolu lu ci des nag muy Mame Boye Diao muy Boun Abdallah Dionne muy Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao mën na ñëw ah, mën na am dara muy Abdoulaye Diouf Sarr neen suturaal seen bopp lu tax ki ci ëpp mérite ci ñooñu mooy Aly Ngouille Ndiaye mais ak ak Mame Boye dañ koo génne Mame Boye Diao il est aimé et respecté. Ah, ah, ah. jàll na benn émission bu mu defoon ak kii. Euh, émission bu mu defoon. waaw boobu moo Pape Ngagne bi boobu bu fees la yor moo Pape Ngagne bi. ñëpp a apprécié. non xaaral ma expliqué la Mame Boye Diao et puis il est il est tey Aly Ngouille nice quoi. Aly Ngouille Diao moom moom nice. Aly Ngouille moo ci ëpp mérite. waaw. ndax moom biñ ko génnee gouvernement xaarul gouvernement dafa bay. mais loolu la xam. jàppale ay nitam. élection te li mu te li mu bay mu dóor dóor yu métti. te fi muy bay. mais pêche dara APR ak pêche ko ci bëti Sénégal. waaw dama lay leeral dara fi muy bay fa la daan demee vacance ba mu amee huit ans maanaam ay suufi maam la dem bay. Euh, kii euh, Abdoulaye Diouf Sarr. Mhm. moom faute ak erreur yi mu def ba jarbaatam gañe ko xale bu ndaw boobu nekk yoof jarbaatam la. mbokk leen. waaw lu ndaw loolu. Mm. gañe ko. Mm. ba tey defarut faute yooyu. Boun Abdallah Dionne ak kan Boun Abdallah dañ koy ñaanal yàlla may ko wér ndax man gisuma ku ko gën dugg ci accident say mbokk yëpp gaañoo sa jabar am problème nga génne ci sa cër jox ko góor rek a ko man ndeysaan. yàlla ko yàlla mais mënu yor Sénégal. ko. ok ak kan. Mame Boye Diao ci réseaux sociaux yi ak bayre ci carte yi du benn tabeem moo tax ñu koy tudd. yow Sonko bàyyi Sonko bàyyi ram réseaux réseaux sociaux la. yàlla na ko yàlla may wërsëg mu mën a joxe. te xam place am nag. maam booy jaaw maam booy jaawo maam booy jaawo am na am na am na am na kii ah maam booy am na xam-xam de. non non yow di nga seetaan ay débat maam booy jaawo politique pour jël réew ak xam-xam ça waaw Macky Sall am na ñu. mais maam mën na yor. non Macky mii. conseiller mën na yor réew non mën na yor réew. li may wax mooy. waaw Macky Sall ñim doyloo ba def leen conseil. Ah. kenn mënu cee gagné ko commune. mooy kan ak conseiller Macky dëgg ñi muy déglu. bu ñu laajoon seen commune. mais Amadou Ba bii ngay wax nii gañuwul parcelle. amadu Ba. Macky Sall bu dee loolu ngay wax kay Macky ko ko xañ. mais dama la bëgg a expliquer lu leer. waaw bu ko neexee mu fal Amadou Ba bu ko neexee du ko fal lu ko neex na ko def mooy président mais bu falee Amadou sax ci la Amadou gën a manqué sens que bu ko bañee fal bu ko bañee fal réew mi sotle ko ndax moom den koo sotle ok sénégalais mënut a fal. d' accord Maaw da lay sotle wala nga Maaw dolli ma cinq minutes rek Maaw cinq minutes rek. waaw ah, sénégalais ah, mënut a fal. da lay sotle mbaa nga sës. merci Maaw waaw nee may na ma cinq may la cinq kon tëjal daaneel boobu ñu dugg ci feneen. noonu loolu rek laa doon wax Amadou Ba mooy beneen président bu topp ci ginnaaw Macky. Eh, loolu xool nga ko moom wóor la wala yow da nga dem ci yàlla mu wax la ko. Ah. loolu <laughs> dafa nee na kii la eh, waaw. ah yow léegi nga ni Jojo fii ni ko yaa ngi may tëkkaleeg nangam. te demoo ci yàlla ba mu leer loolu da ko yow sax xam-xam gi def. maanaam dama analyse politiquement. ah, ah ok ah, analyse la waaw analyse ah. accord waaw euh, dégguma booy li ngay wax sama booy bi nga ne. Pape Djibril Fall waaw Pape la ci ah? politique yàlla na ko yàlla màggal. mbote la ci politique. yàlla na ko yàlla màggal. dina am dara de ëllëg bu dul 2024 sera su wàccul yoonam mën na am su wàccul yoonam hmm. kii. dafa sañ wax. déggoo ko ci coupe d'Afrique euh, ci euh, équipe nationale mu ne Sadio Mané jeexal na na toog. waxu ko parce que da koo gëm de. temps yëpp mi ngi koy wax de. waxu ko parce que da gëm de. ci kii <laughs> mën naa yëkkati sama loxo ni kii man maa ko gën a xam senegal hmm. te mosuma ko gis. léegi yow wuyu ma yar am nga am nga am nga trois minutes nga tontu deux minutes tontu ci loolu une minute nga tàggoo. baax ma après ma tëj nga tàggoo ñëwal. na saajo li tax ma ne jeexal na. ku ko weddi temps moo ñuy àtte maag yow xam nga minimum da daan dugal vingt plus bi ah. di jox décisif plus de quinze. waaw ah. te football statistique la. Ah. Mhm. maa ngi xaar statistique am su saison. bi ci saison bi ci saison bi ba mu daan am. waaw da daan travail autour de lui. waaw dafa ñëw bayaar na defaluñ ko loolu. ay ay ay Leroy Sané ñëpp di ko xeex léegi ma wax la dara léegi ma wax la dara waaw. lan moo tax entraîneur bële. waaw dépendroon ci Sadio kii dépendrewul ci Sadio. entraîneur yëpp ñoo war a yem kii. te mooy benn saajo mais entraîneur kii day bëgg chose bi kii du kii day nekk ci plan de chose. kii ba mu des ba mu des artiste planétaire bu em ni saajo nekk ci ndëndam. tubaab amul choix. dafa ndànk dama lay wax plan de jeu la. tuxal. mais mais mais mën na bañ a nekk ci ay plan. Euh, entraîneur mais xam nga est-ce que xam nga est que xam nga. nangu naa li ngay wax. waaw tey. waaw Johan Cruyff. waaw def na ko. def na ko Stoïkov. waaw non Van moo ko def Stoïkov. waaw Ballon d'or. mu ne ko bokkoo suma plan. waaw. na. waaw Guardiola ñëw na Ronaldinho di boot àdduna di football. mu ne ko abal ma équipe bi indi Messi. waaye ba mu ko bàyyiloo. ba mu bàyyiloo Ronaldinho Messi la indi. kooku d'accord na. mais tuxel bi mu génnee Sadio ku mu indi ba léegi indeegul kenn. waaw léegi yow loolu mënoo ko yóbbu tamit ci mbañeel. mais dafa am loo xam ne déedéet parce que tuxel. waaw mënul la nekk entraîneur boo. xam nga ki ñu la jëloon. waaw dem deuxième tour. waaw lan moo ko waral pour yow. Sadio la Siditi mënoon. dégg nga lii yow mais yow. kii mën a xam nga xam nga dafa am loo xamul mais ñëw. lu mu magee waa léegi jugul ma ñëw. mat na 30 ans. waa léegi ma ñëw ah. te su dee su dee dafa wàññi at lam wàññi nga boole ko ci Cheikhou. est que xam nga bu mu la bett suba day taxaw fi ni Sadio Mané mi ngi ci dugg na lëm. waaw bu boobaa ma wëri ko de. boobaa dañ koy baar nga man man ni ma ko gisee. dafa wax naa wax ko démb non non je suis pas hmm. ñu dem Coupe d' Afrique. juste ci la Sadio Mané blessé. mu blessé donc boo ne ma saison bii passée il n' était pas en forme parce que il était blessé. te boo blessé mën na am ay conséquences. surtout blessure bi mu am moom. bi mu amoon muy benn. deuxièmement c'est rare que jour am ko sax. voilà defaat li mu def après. deuxièmement attente bi doon xaar bu ñu doon xaar ci moom. mu ñëw blessé donc loolu yëpp ça peut jouer mais saison bii di ñëw nii yow bu Sadio tojee Bayern. wallahi azim foo nekk naa la war nga toogaat et puis sax ngonal di sax damaa bëgg mu ñëw léegi sax zone yoon. njaga nee nañ non est-ce que est nga ñëw léegi dootoo mais dootoo doon invité da nekk animateur comme ñun. ma ma expliqué la dara. nga gis. waaw Cristiano Cristiano waaw. bi mu gaañoo. 2008. Mhm. waaw oom. dafa waroon a bàyyi football. léegi. mu changé style de jeu. waaw au que muy def nii di duut. muy taxaw heure. di daw heure entraîné bopp beeg gauche bi. ci la dugal plus de 300 bi. li muy waaw. dafa changé jeu mais Sadio bi mu gaañoo ñëwaat. li lay wan ne cuune mu ngi ñëw ci moom parce que jeexal comme cuune ah. mbër mu war daanu keroog doo am xalaat. dafa war dafa dem Bayern ñu teg ko faux neuf. waaw communication ci football la bokk. waaw lii nga ma teg du man teg ma fële Yakubu keroog bi ko xaari Redknapp di jënd Israël. Mhm. daf ko ne boo ma jëndee ma dugalal la vingt bi dugal ko boo dugalee vingt bi ma jox la deux cent mille dollars. Yakubu am dix neuf bi coach bi di tàcc mu ne ko noo dama échoué. dese na ma benn pour nga joxoon ma deux cent mille dollars mu ne ko fàtte naa ko sax. donc Sadio am na blessure yii nii Sadio footballé na saison ba mu jeex ci kaw blessure ci la am contrat ñëw Southampton. waaw déchirure la doon am. mais jeexal day am Sadio mu ngi ci fin de carrière temps mu demee Juventus première année lan la fa def moom moomu ngay tudd. non moom. il n'a rien foutu de bon. parce que amul woon temps d'adaptation. non du temps adaptation de moom problème bi mu amoon. mooy tactique bi ñu doon joué. Mhm. moo ko arrangé est-ce que tactique bi doon bi Bayern di joué arrangé merci mais xam nga Chris nu mu def dafa dem ci boot bi waxtaan ak ñoom ñu changé entraîneur. Mhm. indil ko paa bi doon tux ki gagné benn kii rek. Mhm. te mu nekkoon Chelsea nekkoon Napoli. kooku la ñu indi ñuy joué ci moom Chris du joué ci tactique da ngay joué ci moom. waaw Messi moo mën a joué ci tactique. mais Sadio mënoon na nga joué ci moom mu joué tactique parce que Aliou Cissé tactique du tacticien. Messi du joué ci tactique Messi da ngay joué ci moom. coupe mais coupe du monde loolu la ko gagné. non non coupe du monde bi loolu la def mais Messi da ngay jouer ci tactique. moom da ngeen di football dix. loolu eh, looloo tax réussirul Paris parce que Paris projet bi kenn joué wul. non tax réussirul Paris mooy ay stars yu wane seen bopp fa ne mais pas équipe bu suudee. waaw parce que du paas kenn xamoon na ni bootul équipe bi Neymar amul fayda. Sadio Mané mii daal moom sa waay. Mm. amoo luñ ko. yow da nga bañ na Sadio dafa mën ngaa juum nag. yàlla naa juum su ma ah. juumee moo gën ci Sénégal moo gën ci moom boo juumee dañ la vaar nag tamit boo juumee dinañ la yaat ko ko voilà kon gars yi ça émission bi neex na jërëjëf waaw waaye dafa am loo xam ni Ndiaga Ndour de suñu directeur waaw daf ma koo déyee ne ma Cheikh Ahmed Cissé bu ñëwee ci ngonal bi hmm. waxtaanal ak moom mu dig ko waa Sénégal yeneen ngonal yëpp muy toog ci plateau bi pas en tan que invité mais en tant que animateur comme ñun moom bëgg na loolu waaw toog ak yow ku koy bañ di nga ko def toog ak yow ku koy bañ ci réew mi non xam lañ lay indi léeg-léeg xam nga man léeg-léeg nga question bi doo ma ko tontu la toog ak yow ku koy bañ ci réew mi non mën nga am bane bane am am envie tamit toog ak man te forcé ko def ci réew mi fii te forcé ko def ko am na ah, ah. yonent yi fi nekkoon ak ulama yi man maay sëriñu nante yi damay ñëw ba mu waaye man man ah, du ma jébbalu de mais nante nga déedéet waaw boo ko ci taalibe yi man nante laa man ci nga bokk nan tey rek lay topp. mais nit ku baax nga baax nga. li leer ba leer mooy ngoonal yi di ñëw moom day bokk ci plateau bi en tant que animateur. mais nag na indi affaire yi muy jaay. ak fay télé bi mu teg ko fi yooyu moom du fi tegu. ah ma expliqué la dara cher ci télé bi. Ah. pour wan la sànnee. Ah. niveau niveau sénégalais yi. Hmm. tey Ahmed su ñëwee comme animateur wala chroniqueur. waaw du Cheikh Ahmed bi nga xam. waaw. ndax professionnel la ci lépp lu muy def nag. waaw bu may saaga sax damay saaga professionnellement. waaw. Ah. Mhm. mën a saaga. mais nag eh, fii télé bi jëlu pour expliquer la que. day joxe exemple nii su ma ñëwee fii yow ma. yow ma duuloo woon ak yow. Hmm. en dehors de émission bi la. waaw mais si émission bi teewee. professionnel gan nga dafa am lu ñu sekk bu jeexee jeex na loolu laa bëgg ñu. war a non non mais nag li tax ñu gën a yokk tax nga bëgg fee ñëw li nga yor ci sa biir bopp bee tax ah. waaw koy waaw looloo tax. Ah, il faut non maa ngi expliqué comme tey. non non pour bu ñu amee beneen gan ak yow. non mën nga am beneen invité mu ne la Cheikh Ahmed. non bu boobaa ñu la doo ñëw rek yow nga toog. non moom mooy toog. waaw dëgg kay na dëgg toog mooy toog kay. kaa ñu waxtaan koo fa ragal a toogal ma teewoo ko wax sax nag nee na koo koo koy toog. soo ñemewul yow yaay toog man ma ñëw. Eh, mais eh, mais attention hein loolu je le dis devant tout le monde. waaw kay waaw ku du nit ku kii ah comme ni ko kii il est il extraordinaire nit ku baax a nii ah. Mm, nit il est super ah ni kii dina la billaahi kii nax la ñu bari. kii day naxe moo ko tey nag moo ko tey dina. li muy def moo ko tey. non mais dama yu ma war a fay rek damay fexe pour dund rek ah. nga ni dama am facture yu ma war a fay damay dund rek. dégg nga. dégg nga mais bis bu poche bi duufee nga xam may kan. waaw da génn ci yëpp dem na Amérique di xas Sénégal dem na Amérique ni bàyyi naa la nga. seen lu ma leen a ma dóoroon kañ sénégalais yi. kañ du may métti. dañ laa doon ba nga naan may leen ma ndox may leen ma ndox ma naan tuut ma dee. non loolu dama cee jooy ba. Oh, ba pare ñu jàppaat ma tëj ma kaso ci la ñuy ibbee la. yooyu la ñuy ibbee la ñuy moom ma ferege ko ferege la gisee Ah, biñ may dóor ci biir dóor yi. Ah. Eh, maa ngi doon sonn mais biñ taalee caméra yi. Ah. Eh, waaw bu leen def lii am na ko wala wuy leen bii di ñëw. maa ngi moom la ñuy ubbee waaw maa ngi am mbégte. file. Euh, ngoonal plateau bu ma neexoon la man bi ma koy njëkk di seetaan ak suma benn rak mu ne xay kii nangam nangam dafa meloon ni. nit ki day ñëw taduf émission fekk émission la balaa nit ñi di comprendre yàgg na. Mhm, mhm. donc Sanekh doon ci jouer role bu mag ak. xalamkat da ci delluwaat sax saa day fa mu delluwaat ci loolu. maanaam bépp question bu waroon a métti moom moo koy jël ci kaw kaf. waaw. billaay wallaay dóor la ko ba mu saf. waaw boo paree mu yëy gertem wala guróom yëy mel ni deful dara fekk. wallaahi azim ci li doon bax la këpp. foofu la wax nañ ko ko ba taay. donc Aziz mel ni benn innocent. xamul dara muy calme si teexa te fekk lépp moom la. <laughs> musul innocent wallaahi ndeysaan. donc euh, <laughs> mu doonoon pro programme bu rëy. yow nga doon joué benn intellectuel bu xamul lu xew. fekk yéen ko waxtaanee. <laughs> waaw mu doon lu rëy. ma gis tam ay palato yu ci juddu. waaw ah. bëri bëri na nag plateau yu ñuy def ci. Euh, ci tudd ngoonal télé yi waaye ngoonal mooy seen baay. waaw waaw bu doon laadum la ngoonal moom mooy. seen i du ngoonal. donc may am kontante war fi teew toujours mais ubbiwaat ko tey. xam nga nga nekk xale nekk Gàmbi toog di seetaan benn émission dem ba toog ci. Mm-hmm. am na am na jéego yoo dox. Mm-hmm. ndeysaan. donc nga wax naa la ko suma yaay daf la bëggoon. ndeysaan dëgg la. daf la doon seetaan bu baax. suñu waxee rek mu ne Jojo moom théâtre da ko daan seetaan comme dëgg la su waree saaga saaga su mënee mer mer uh-huh. donc nga demaat ba toog ak ñooñu ak loo mën a doon nag it's loo war a sant la gërëm mm-hmm. di sant njaga ci confiance bi mu am ci man ci lu bari nag tey woo na ma wax ma wax yu rëy ma ne ko d'accord nag li may wax sénégalais rek mooy buñ ma xaarati ci fenn fu mooy fii ngoonal ak programme bi ñu def muy jégg dayo muy jéggi lu ma war a wax fa koy wax lu ma war a def fa laa koy def ñëpp abonné ci SSP ci internet bi. kal ko ci TFM waaw merci beaucoup jërëjëf maa ngi gërëm ñëpp di leen sax di leen euh, di euh, dikk jox daje fekk euh, ay fan incha allah yu néew a néew kon ngoon na ñëwaat na di nuyu waa Salam Oto ah Ibra Kebe maa ngi lay nuyu. Ibra Kebe Salam Oto waaw Ibra Kebe foofu sa kër la. xaritu kii la nag. xaritu kan euh, ki ñu doon tudd léegi Amadou Ba. Amadou grand am la. kon xaritu président de la république bi ñëw. Khadim Dia Khadim Dia Khadim mm. Dia ñoom ñëpp. ay demoon na Makka vraiment Khadim. Ah, waaye nag may nuyu Pape Modou Fall. Pape Modou Fall directeur de l'emploi. waaw waaw ak Soxnaam. nuyool Soxna May. Mm-hmm. xam nga Soxna May. doon jigéen joo xam ne Cheikh man nag li ma naqari nag man njool bu njëkk ba ñi mu xam ñëpp dama leen a xamoon mais léegi da ngaa xam ñu ma xamul quoi bëggeel gi ma léegi ñi nga xam xamuñ leen laa wax soxna may waaw la yóbbu ci kooku dañ leen ah, soxna may jenn soxna may jenn changé nga de surtout Cheikh Issa jenn la borom jenn ak lagal hmm. borom këram mooy Pape Modou Fall mooy directeur de l'emploi du Sénégal waxoon dañuy yóbbu foofu yow ah soxna may daa demoon màkk nag hmm. waaw mu ngi soog a ñëw waaw dinaa leen fa yóbbu maa ngi koy nuyu di nuyu Ibra Kebe di nuyu famille bi yëpp ak sama famille maa ngi nuyu ñëpp mais comme que ngonal ñëwaat na nuyoo yeeg yooyu dina ci xaj waaw day gën a ñëw mais mais il faut qu'on soit catégorique sur lenn waaw kii li mu wax dafa am solo waaw kan waaw saa la mu bëggoon laaj da koy laaj nga yaakaar ne dof bu xam non loolu maa ngi koy laaj mais am na loo xam ne du ma ca delluwaat waaw danga nga ciy delluwaat lan loolu looloo lan la loolu lan la toog ataaya toog fan fii kon gars yi jërëjëf Mao Cissé. waaw suñu réalisateur bi ñu ngi lay gërëm. bu baax a a baax waaw ñoom Khadija. Mao réaliser. di la réaliser. maanaam day waaw day réaliser di la réaliser waaw waaw wax code laa wax. waaw wax nga code. Euh, mat côté bépp. sa toogaay sax bu jekkul da lay déyee waaw da la koy déyee ne la defaraat waaw defaraat waaw defaraat sa yéene yenn question yi sax boo ko fàttee da lay déyee ne la ne la defal lii ak lii ak lii waaw dafa am expérience ku bëgg màkk waaw xam nga Youssou Ndour nag ah, ci la ko jëndee woon yàlla da koo xam nga Youssou nag ba mu koy jënd ci El Hadj Ndiaye maa wax hmm? man Youssou ba mu koy jënd ci El Hadj Ndiaye mercato boobu léegi fer na wala doon wax ah kon garaawul maawo fer na wala ferul <laughs> ah fer na wala feragul maawo ça y est maawo fer eh, ay eh, maawo mi ngi ci 27 fois muy dem Màkka moytu maawo de moytu ko de maawo dafa raxasu ba set wecc kon ah, gars yi ma wax invité ma wax invité yeneen ngonal li wala jarul ma koy wax non bàyyi leen mu doon kii mu doon surprise waaw moom mii sax léeg-léeg war nañu mën a indil invité. waaw kay naa ay invité yu rëy yu am solo waaw man kale naa ay invité yu rëy. waaw waaw dëggal maa woo naan mën nañu invité Kaliphone Kaliphone pourtant baax na de. non Kaliphone du ma ko boole kii. Kaliphone mën nga koo boole mu wax ñu lan moo tax. xale bi pourtant nag barki démb ndeysaan nee da ngaa. wax ni yow lu moom dafa a eh, a raay dafa a raay a eh, na tuuti maa am nañ cinq minutes dafa dafa dafa raay waaw raay kay du viol. mais kooku sama xarit la bàyyi leen jàmm tentative de tentative de viol waaye daa raay la daa raay la ñu wax. dafa raay ba pare dóor waaye laalu dee. waaw ñooñu ñi koy def ci réew mi tamit. beneen daa raay ba pare dóor waaw bëgg a feeñal rek. dafa jàpp rek waaye julliwul. ah waaw moom tamit lu muy jàpp te julliwul. Mm. Ah. xam nga yaa koy tooñ. <laughs> mais c'est la mais dina la attaqué war naa xam nga. ma muñ. <laughs> kon Sénégal. dama takk ceeni or waratuma ah ñu leen jox rendez-vous incha allahu bi di ñëw même heure même place TFM. peace.